mbokk nuti yi ñu ngi leen share bu baax baax di leen wax ngeen dal jàmm Sud Sport 221 fuy gan ci page bi ñu ñaan la nga abonné nga activé cloche bi bu leen kat yi fàtte di liker eh, vraiment eh, c'est très très important bu leen neexee di bàyyi seeni ay commentaires. wàllum transfert la ñuy tàmbalee xibaar yi la jeune défenseur espoir de Guédiawaye benn mu iyo ci Mapenda Mbaw ko rejoindre officiellement club bi nga ne kon Kongsvinger club bo mi ngi ci deuxième division foofee ci Norvège jàppale ci altine bi ñoom la ñu tàmbali seen ab championnat jàppale ñoom ñooy daan 2 buts à 1 et que pour rappel buy soxandikoo ci Wiwe Sport moom remporté na li nga mooy CAN U20 u bi avec les Lions de la Teranga kon ñu seede ko bonne carrière. ñu utali foofee ca Cameroun ginnaaw yi ba ñu tabee le technicien belge boobee di Bry jàppale nag voilà coow dafa dox si diggante fete si li nga xam ne mooy Fecafoot ak euh, li nga xam mooy mooy seen ministère de sports ndax li ko war a mooy que ministère de sports boobee ci benn communiqué lañ fësalkat ñu ñoo tabb le technicien Marc Bruges et que ci noonee kat euh, Fecafoot bi nga xam ne Eto'o moom mooy njiit ba. ci benn communiqué ñoom aussi ñu fësal seen ab jaaxle seen am njàqare kat ci nomination boobee biim ñoom yéeguñu tiinuñu ba tànn kat loolee dina gën indi jafe-jafe waa Cameroun bi nga xam ne ci fenêtre FIFA bi weesu woon sax amuñu la nga xam ne mooy ma match amicaux Paul Pogba bi nga xam ne Varane ak seen famille la coow li yëpp juddoo ci noonee ka nga xam ne moom mooy. voilà frère di Mathias euh, Mathias Pogba moom nak euh, voilà face aux enquêteurs li wax mooy que moom ka dañ ko dugal dañ ko dugal kat ci mbir yi ba dem ba ci biir voilà xamaruf mi teg tànkam kon mu ne ci coow loolee kat moom dënk ci dugal voilà xamul lan moo xew ci noone voilà nag manipuler nañ ko ba tax nakat voilà indi nañ ka nga xam ne mooy Paul Pogba ay jafe-jafe kon kat yan nañu yàlla musalkat ci feebar yu mel noonu Juventus de Turin moo remporté li nga ne moom mooy première match bu demi-finale Coupe d'Italie face à Lazio de Tudor ñu daan ñaari bal ci dara match retour bi jàpp nañ ko 23 avril ek course au maintien Premier League voilà nag comme ci kaw mooy que ci premier place ni mu tàngee voilà ci suuf la tàngee ci xëcc ba pour mën a ba bañ a wàcc ca la nga mooy Ligue 2 ba ndax ka jàpp leen Brentford benn moom mooy quinzième kon moom cinq poñ dong la rawee premier relégable benn mooy Luton Town nu dem ngaa fa da ñaxatee ak Kouyaté aussi ñi xëccu pour bañaam wàcc ñoom am nañ vingt cinq classement ba ek kenn mooy Trent Alexander-Arnold naam Real bëgg na ko waaye que Real yokku nañ ci kanam mooy Reece James ji Chelsea bu ñu ci fi jaaxees Newcastle voilà bëgg nañ lool dalal kii nga mooy Aaron Ramsdale portier d'Arsenal gaañu gaañu bu nekk poppe boobee mooy takkat ñi ngi wëri ay pexe jàpp leen buñ soxnikoo ci mel Calvin su nag Bayern na ñoom kat voilà nag ñu ngi ci yoonu na say pexe xool ba xam nan lañ koy dalalee waaye këlëbam boobee di di Man City buñ soxnikoo ci mel ñi ngi laaj 30 millions d'euros pour rappel dañ ko abalee foofee ci West Ham West Ham boobee ñoom kat buñ bëggee signeel Amadou Onana dinañ teg ci table bi lu jege 60 millions d'euros Football Insider moo fësal xibaar boobee The Sun mu nekk Newcastle ñi ngi xaar ay offre yi nga xam ne ñu ngi dara bawoo ci club yu mag a mag lu ci mel ni Arsenal Tottenham ci seen ndaw Suède waa benn moom mooy Alexander Isak waaye Alexandre Isak kan mu ne ëllëgam ci club boobee ñu leen dëppale les mag pays mu ne voilà lii ba leer mooy que moom bëgg na fa doxal nag dans le futur man seen Greenwood moom nag voilà nag. idée bi nga xam ñu bëri ñu ngi koy fësal naan voilà dina delluwaat ca Manchester United waaye moom kat voilà bañ bañ na ndax bu ko wax dellu ndax kat cooli ba mu juddoo club boobee da koo seetaan dëgg ci wàllum viol woon. ñu ne ko ci ek ba mu génnee actuellement mi ngi wane boppam foofee ci Espagne ek club yu mag ñi kii naawam waaye club boobee nag jaay lañ gën a jékku kat mu fay delluwaat sa Atlétique moo faral xibaar boobe ek seen coach boobe di Erik ten Hag bu fekkee nag bëgg na desandi foofee ci Manchester United la nga xam ne mooy politique de transfert bi nag dañ ko tegati ci ay loxoom voilà mel moo fa sa xibaar boobee ñaari jumeaux lañ muy Jack ak Tyler Fraser ñaar ñu xaraña ci ni amal fësal nañu ginnaaw ba ñu wane seen bopp ci ndaw yi ak actuellement ñu ngi doxal avec les Tigre Lions waaye toujours ci xale yi ñoom nag signé nañ seen contrat professionnel bu njëkk nag ak club boobee di Manchester United André Onana naam clubam boobee di Manchester United mu ngi ci jafe-jafe de waaye moom kat mooy gardien bi moo ëpp lum amal wala boog amal ay arrêt yi nga xam ne voilà empêché na ñu ay but kon comme ni koy waxee mooy que voilà nag club dafay soxla défense bu baax a baax naam góor loo xarañ xarañ waaye sa défense kat bu mënee ne di ko misaale ku ñëw jàll wala nag loolee kat du indin ndimbal ci portier yi Guardiola mi ngi indi ndim mi ngi indi mi ngi défendre car mooy xalaat bi nga xam ne ñu bëri ñu ngi dal ci kawam lu ci Alan Shearer mu ne nag voilà gis na ko ci match si contre Arsenal boobee mu dem match bu rey bu exceptionnel voilà nag ñeen ñi voilà nag ñi ngi ñi ngi koy ñi ngi koy xalab di ko wax lu nekk waaye li leer ba leer mooy que moom mi ngi indi ndimbal ci moom boobee ki ngeen mooy Nkunku xam ngeen ne moom dafa amaat gaañu gaañu Pochettino mu ne nag leerul kat. kañ lay ñëwaat ñu desandi ci moom mi nga mooy le technicien argentin ci nouvel contrat bu Cole Palmer bi ñu koy ruumandaat mu ne li leer ba leer mooy que moom vraiment mi ngi wane boppam nag signé na contrat 5 ans 6 ans 7 ans loolee xamuñu dara du samay kàddu Pochettino mooy wax waaye li leer ba leer club bi kat bu fekkee bëgg nañ ko voilà dinañ def lu war bu ko defee mu mën fa desandi. kanoor gërë mu dee benn geste bi nga xam ne voilà ñu bëri jàpp nañ ne wàllum racisme la ci benn jeune ramasseur bi de balle comme niñ ko fësalee jàpp leen nag voilà kookee ko doon nuyu ek moom mooy doomu anglais bi voilà nag dafa mën a gisu ko woon ñu bëri nag jàppee ko polémique ci réseaux sociaux ba tax nakat këlëbam boobee di si nag ñu ngi indi ay leera ek di indi ndimbal ci jour boobee cercle 04 bi nga xam ne mi ngi foofee ci Allemagne moom vraiment nag c'est la descente en affaire ndax kat ñu ngi dund lu lu mburu dajul ci taal jàppale seen stade boobee ñu koy Veltins Arena buñ mayoon nag dinañ ko jaay bu fekkee dañu leen relégué ca la nga mooy troisième division bi ndax wala duñ amati yam di leen may ñu entretenir ko actuellement nag ñoom ñooy quatorzième ci Bundesliga 2 bi eka 2 points di Bara JC Sport Bild moo fësal xibaar boobee Borussia Dortmund comme ni nga xamee seen ay mayo ta seen ay mayo kenn du ñoom taaru na lool ba tax nag nañ benn may bu spécial pour seen 50 ans signal UDINA na park ak dernier examen yi amal nañ ko ci défenseur congolais bi mooy sal seen memba kat ñi ngi fësal am tan tuuti nag voilà plus de peur que de mal comme ni ngay waxee ci kàllaama tubaab waaye nag mu doxal ci ajuma bi contre Lille ci Ligue 1 bi nag waa leeragul waaye la leer ba leer mooy que moom gaañu gaañu boobee ñu koy séntu mu doxal ci yeneen ay jëwante Paris doon amal jëwante contre Marseille Paris daan waaye ka nga Jonathan Klaus bi nga xam ne voilà moom il a été victime d'un cambriolage ay defkatu ñaawteef ñoo ñëw foofu et que li nga xam ne moom la ñoon séntu na mooy coffre-fort bi waaye nag heureusement fekk ñu fa daray koppar stade Rennais nag ñi ngi fësal ne voilà nag pour ñi nga xam ne bëgg nañ seen ndaw bi mooy Désiré Doué vraiment il est un bon joueur pour US Ligue 1 bi national vraiment talentueux club Rennais boobee ñu ne ku ko bëgg di teg 40 millions d'euros bi nga xam ne nag voilà dañuy dénicher ay jeunes pépites du keneen ko du Leverkusen de Xabi Alonso ñoom ñi ci ginnaaw pour mën ko dala bu ñu ci équipe waaye xibaar yi fësaloon na ne Côte d'Ivoire ki ngeen mooy fay mi ngi def ay jéego nag pour mën ko convaincre mu doxal avec les champions d'Afrique. ñu deseen liggéey France ki ngeen mooy Orlando Silvestri moom mooy coach adjoint bu Valenciennes moom kat ginnaaw gi Lyon kat ba ñu daanee ci demi-finale boobee supporter wàcc nag voilà stade bi da kaa jaawal ak benn supporter voilà nag mu rulloo ko ay coups ci noonee voilà nag. ci la koy doog a xàmmee ek nag club boobee wala boo club jon John Textor boobee nag moom man mooy seen directeur général nag ñi ngi jéggalu bu baax a baax ci lu jot xew foofe waaye ka mooy stade bi moom convoqué nañ ko nag voilà nag pour mën koo déglu RMC Sport moo fësal xibaar boobee Tanaza Sport moom nag teñ nañ ko ay daan foofee ca Turquie juróom benn match yam ak seen ay supporters dañ ko teewee ginnaaw gi seen jonte ba ñu amal contre Fenerbahçe Zori di xaar yenn ci ay supporters ba sax na sax Fenerbahçe ñu ngi doon menacé est ce que duñ quitté championnat boobee bi ngeen vraiment violence bëri na fa mën nañu wax comme mooy nawetaan en Europe. pediri mu nekkat affiche bi nga xam ne moom la bëgg kat ci jongante bu Ligue des Champions bi voilà nag prédire na Man City contre Barcelone. ñaari doomu africain yi nga Edward moom Edouard Mendy ak kenn mooy Yassine Bounou de Al Ahli Al Hilal jàpp leen bu baax ñaari portier yooyu ñi nga wane seen bopp ndax ku ci nekk am nga fukk ak ñetti masiyam doxal nga ken mënu dugal ñu koy woowee Terence clean et que Mikayil Ngor Faye avec ses bonnes performances mu dugal 5 buts kon réaction bu Barça leer na nañ wala nañ ko bëgg a dugal ci équipe dans le futur waaye nak dugal nañ ko na muy entraînement ndax kat xam nañ bu baax kat benn benn yaakaar la pour ñoom voilà à l'image de Lamine Yamal Pawo Kourbassi kon moom dina doon un renfort de taille voilà nañ ñu koy séntu pour la saison prochaine naam ñu koy convoqué nag muy toog ci banc bi waaye pour mu doxal dëgg dëgg dëgg voilà faw ngeen gis ko la saison prochaine maa ngi rappel kontra contrat mi ngi dem ba 2027 Alun Cissé ñu àddu ci ay mbiram moom même amal waxtaan bu yaa ak émission génération after sur RMC voilà ndax mën nañ ko gis mu def une carrière ah, en club kon moom réponse bi nga xam ne moom la indi nag jàpp leen bu baax mooy que mu jël benn équipe étrangère lu ci mën ni club loolee lu mën a nekk la waaye nag mu ne pour la moment nag dafa am voilà engagement ak le Sénégal waaye nag du tere benn yoon nag moom dina dina dina dina dalal ay offre yi dina bawoo ci club yooyu nga xam ne bëgg nañ ko dalal. cey doom nag Aliou mooy mu ne am na proposition yi nga xam ne ñëwoon nañ ko teg ko ci table bi et que yooyee ñëw na kon dans l'avenir aussi dina gis yeneen yi nga xam ne voilà dinañ ko teg ci kanamam bu ko defee mu mën a doxal foofee. jeexalul foofu ci kàddu mu ne nag euh, voilà loole pour benn option la mu doxal ci benn club kon loole dina doon benn nouvelle aventure pour Aliou Cissé loolee nag dina ko may mu wanekat voilà la nga xam ne mooy xarañteefam la dont il est capable et pour rappel Aliou Cissé amoon na expérience ci club mooy que ci. ci national 3 bi foofee ca Loan Cuisseau comme ni ñu ko fasalee atum 2010 2012 laata muy muy doon adjoint bu bu bu bu ka nga xam ne moom mooy. Sékou ju dem si yàlla ji yal na ko borom bi yërëm xare ko àjjana voilà avec les Lions olympiques laata muy jor équipe nationale du Sénégal ci atum 2015. yemul foofee ci kàddu mu ne Sénégal vraiment capable nañu remporter li ngeen mooy coupe du monde loolee leer nañu la benn génération bi am nañ maturité voilà nag am nañ màggaay bi am na mën nga leen may loolee ek tàmbali na ek wala dafay tàmbali sax ci ay ak qualification yu prochain CAN bi atum 2025 foofee ci Maroc mu ne nag voilà nag bu ñu fa defee parcours bu mucc ayib voilà pourquoi pas ñu gàddu raay boobe ñu jeexal xibaar yi ak kenn mooy Cheikh Kane Sarr bi nga xam ne dañ ko teg ay daan ginnaaw gi kat bam doon jàmmaloo yenn ci ay supporters yi nga xam ne voilà dañ ko doon defal ay waaye ci wàllum racisme ci noone mu dem jàmmarloog ñoom kon moom teg nañ ko ñaari match yi nga xam ne du ko doxal comme niñ ko fësalee ek jàpp leen sax moom bam doon jàmbaloo ak la nga xam ne mooy supporter ca tribune ba arbi da ko rouge mun dara jàmbaloo ak moom ay jouram ñoo ko téye ci noone voilà nag arbi bi loolee la yokk ci rapport bi ba tax na kat daan yooyee dafay gën a sévère en conférence président nag indi na ay leeral waaye mi ngi jéggalu bu baax a ci li jot a xew et que clubam boobee ñi ci jafe-jafe dañ ñoom ñooy lanterne rouge ci D ci D3 espagnol bi kon balaa nag retiré nañ leen 3 points balaa nag euh, sur tapis vert à 3-0 de but et que amende nañ leen 3000 mille euros comme ni nga ko fësalee wala nag euh, beneen club bi mooy euh, Sestao River club bi nga ñoo indi coow lu yëpp ñoom nag teg nañ leen ñaari match yi nga xam ne seeni supporters duñ ko mën a teewee. a toujours les mêmes histoires ndax Vinicius mi ngi mi ngi daj lu mel kon bi ñu gisee Sénégal bi duñ racisme aussi loolee vraiment lu ñu war a taxaw ndika que fi vraiment comme ni nga waxee basta doy na sëkk gars yi ñu mel xibaar dina jaajëfal ba beneen yoon sur Sport 221.